fàttali ni Sénégalais 50 pour cent euh, jànguñu euh, bon en tout dañ leen tuddee euh, ñu. di ci profité di ñaanal sama waa ASC ba nekk ca phase nationale ba yàlla nañ ko gagné ak jàmm. Mm, mm, fan Louga. ASC Penc. Ah, moo dem phase nationale. nga phase nationale Diourbel je pense que ñi ngi war a jouer quart de finale huitième de finale. tey au de finale. Louga moom c'est le Gotha du nawetaan. ah nawetaan c'est notre affaire. Mm-hmm. Mm-hmm. acca ñu dem ci beneen euh, ponk ci waxtaan bi di wàllum euh, politique euh, Moustapha dossier yi nga xamante ni ñu ngi koy transmettre la dikk pour enquête exhaustive est-ce que commencé wuñu quand même ci reddition des comptes bi nga xamante ne boobu ba tey ñu koy annoncé. waaw xam naa day man bu ma xëyee tey ci suba xool journaux yi. Mhm. gis surtout Libération. mu wax ne procureur de la République jël na ay dossiers def na li ñuy tuddee ay soit transmis. ah Ibrahima noonu lañ koy waxee. yónnee na yii section de recherche yi division des investigations criminelles am na benn liste lu mat fanweeri doomu aadama yoo xam ne dañu amoon ay responsabilité ca nu ñu koy waxee sax régime bee jàll. Mm-hmm. wax nañ leen ne ñoom moom aéroport jas buñ ñu fa tegati seen tànk. Mm-hmm. nañu toog ba ñu lëñ bët seen i mbir ba pare dama ne nii la mbir yi war a doxe mm-hmm. et encore une fois Pape man je ne le dis pas très très honnêtement mhm. parce que dama yaakaar ne euh, parce que je ne le dis ndax dama yaakaar dañu war a jàpp nit ñi di leen yóbbu kaso mhm. Mhm. dama yaakaar ne réew bu ko ay nit yore pendant douze ans euh, ñu ñàkk nguur jox ko ñeneen et pendant ces douze ans là amul benn sénégalais même ñi nga xam ne ñoo far ak ñoom te ni ñu daan defee ci les les deniers publics jaaxalu leen woon ñëpp la jaaxaloon nguur googu daanu am ñoo xam ne ñoo leen wuutu ñi leen wuutu wax ne ñoom la ñu foogoon ba ñu nekkee opposant ba tax ñu daan dénoncer mauvaise gestion ni ñoo leen réew meeg yooyu ba ñu ñëwee ba xool mbir mi lañ fa gis a gën a garaaw mais man Sénégal bi ma doon j'ai envie de savoir lan lañ fa gis j'ai envie de le savoir et lan lañ fa gis lu tax ñu naan moo gën a garaaw ñoom la ñu njortoon kenn moo ñu ko mën a wan mooy justice parce que Ousmane Sonko wax na ne président de la République dina wax il va faire l'état des lieux xaw ma nu ko waxee la dina wax. mais encore une fois président de la république moo wax su premier ministre waxee premier ministre moo wax mais ki nga xam ne moo mën a wax sénégal yi ne leen lii moo fi nekk. lii la Ayoba def lii la Moustapha Diop def lii la Ibrahima Wane def kenn rek la. muy justice. donc buñ ne laa procureur de la république jël na dossier yi. jox na ko ñi nga xam ne ñoo ci war a l'enquête ñu commencé seeni l'enquête xëy na am na loo xam ne procureur xam na ko ci déjà ba tax mu ne naa leen jox liste boo xam ne ñii ñoom bu ñu génn parce que dama leen soxla mais su boobaa li nga mën a def mooy ne nañ ci dem te continuer ci pour que une pour une fois dans ce pays ñu leeral ni ñu yore koom-koomu réew mi leeral goo xam ne kenn du ko teg ci kanamu Moustapha neexuma dama koy sànq wala Moustapha daf ma doon saaga bi ma nekkee opposant dama koy sànq non non c'est pas que les Sénégalais attendent mhm. les Sénégalais ce qu'ils mooy simplement ci lu yomb 2012 ba 2024 nan lañ yore woon kopparu Sénégal ak côté de nan lañ yore woon kopparu Sénégal mhm. mais nan lañ yore woon Sénégal si boppam mhm. violence yi ñu doon teg si kaw nit ñi injustice yi ñu doon teg si kaw nit ñi les Sénégalais ont ont envie savoir parce que on a beau regarder xool ne gars yi kët li ñu jël ci alal dafa bari ñi ngi tabax fii ñi ngi def lii ñi ngi def laa amu ci kenn ci ñun koo xam ne man nga taxaw teg ne voici la preuve que ni Ibrahima Anne moo nangam. voici la preuve que ni Ayob Faye moo sàcc nangam. xam nga kan moo ko mën def. Mhm. la justice. si la justice entre en action dans cette affaire je quelque part ñëpp a war a remettre la balle au centre taxaw xaar. mu def son travail après on verra ce que mhm. Mhm. Euh, jii ñu dañ doon wax ni mbir yi yéex na mbir yi yéex na dañuy waaye gisaguñu dara mais jamono ji xanaa euh, ñu doon wax loolu am nañ lu teg seen loxo quand parce que bu ñu jëlee ay dossiers yóbbu ko digg ak section de recherche euh, pour enquête exhaustive mën nañ jàpp que ni en tout cas euh, mbir yi dañuy am suite judiciaire. bien sûr xam nga lépp lépp foo faut respecter les les les procédures. respecter les procédures mooy bàyyi ñi nga xamante ni ñoom la yoon walla état jox cër bi nga xamante ni mooy saytu. ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon di gérer lan lañ ko doon gérer ñu saytu ko bu ñu paree jébal ko ki nga xamante ni mooy euh, justice mu xool euh, lu nit def ak lu nit deful ba ñu mën ko ba ñu mën a teg lépp ci yooyu ci ci kanamu askan bi ñu xam euh, na ma demee mais dafa am lu am dafa am ñu doon gérer réew mi pendant pendant douze ans Euh, pendant douze ans yooyu ñu gis ni de deux mille dix huit à deux mille vingt trois ñoom ñu ni euh, lépp lu ñu def ci diggante boobu amuñu pour rendre compte ñi nga xamante ni ñooy askan bi lu ma su ma waxee su ma waxee loolu dama ko dama ko teg ci ni de 2018 à 2022 aucun rapport de la Cour des comptes n'a été publié te rapport Cour des comptes yooyu dafa war a génn chaque année pour euh, li tax mooy euh, bu ñu defee seen i seen i seen i seen i seen i gestion euh, année bu nekk Cour des comptes dafa war a génne rapport pour wane alalu réew mi ak fonds publics yeeg yenn yi nan lañ ko doon gérer loolu depuis 2018 ba léegi 2018 ba 2023 amul benn rapport Cour des comptes parce que tout simplement euh, nguur gi fi nekkoon bëgguñu woon euh, rapport yi génn IGE tamit rapport yi nga xamante ni euh, joxoon nañ ko président de la république bi président de la république moo taxaw ci kanamu ci kanamu askan bi ci kanamu télé bi yëpp mu ni am na rapport yi ma jox mais maa ci teg sama maa ci sama conc donc bu fekkee nguur daf fi nekkoon jàpp ni moom ni muy doxalee amul benn compte bu muy rendre bu ñëwee a def ci première semaine d'abord mooy le président de la république Bassirou ni nga xamante ni amoon na muy rapport cour des comptes yëpp nañ ko publier de 2018 ñu ñu daal di jël rapport yi te publier ko loolu mooy loolu mooy lu loolu mooy lu normal euh, beneen bi ci des nag comme rapport yi publier nañ ko mu activer ñi nga xamante ni mooy euh, les inspecteurs généraux d'État ci yenn 70 plus de 70 ministères fonds publics ak direction ak agence yoo xamante ni ñu ngi fi woon di gérer euh, alalu askan bi bi rapport yooyu def naa bi ñuy paree audit yooyu bu ñu paree tamit dañ koy jébbal ki nga xamante ni mooy président la république moom mooy xool ndax daf koy jébbal xamante ni mooy justice wala ñu def ci seen liggéey donc yooyu yëpp nag bu yembee euh, je pense que après euh, reddition des comptes bi mun naa commencer képp koo xamante ni laale nga ci euh, ñu njort ni tamit laale nga ci bu yóbboo nga xamante ni da nga wuyu ci kanamu yoon ba xam ba askan bi en tout cas ñu xam lan nga defoon ci alal bi nga xamante ni moom lañ la déngoon Mhm. leneen li nga xamante ni aussi dogal la bu jógee ci euh, gouvernement bi euh, Ibrahima Anne mooy plus d'une trentaine de personnes euh, visées par des oppositions transmises par à la police de l'air et des frontières maanaam ay kilifa yu bëri ñoo xamante ni tey jii mun ñu génn Sénégal tant que mbir yi leeragul. bon loolu yaakaar naa ne bon dans une dans une procédure lu ñu mën a lu ñu lu ñu mën a comprendre la. Mhm. seulement. li ma li ma li ma li ma li ma li ma dul d'accord rek mooy euh, je pense que jusqu'à preuve du contraire c'est le juge d'instruction rek euh, une fois saisi moom moo mën a euh, entraver la liberté de circulation d'une personne parce que aussi le procureur de la République quel que soit son quel que soit ses pouvoirs quel que soit ses l'étendue de ses prérogatives moom li ma mën a mooy sàkku il faut demander à ce que par exemple Ayouba mi qu'il ne quitte pas le national hmm. durant benn benn phase enquête mais euh, j'ai vu que euh, la semaine dernière ou bien la semaine d'avant que defoon nañ ko Lat Diop une fois ou deux fois donc euh, tey xam ma barke démb si Ablaye Seydou Sow donc euh, xam naa ne foofu lañ dul d'accord Pape parce que semaine dernière dafa <laughs> defoon nañ ci benn débat mag yow ak ak ak ak Mame Birame Wathie je man je je pas pour la présomption de culpabilité. je suis pour la présomption d'innocence. Mhm. Euh, ñoom. Euh, depuis qu'ils sont là ils parlent de de de de am na lu ñu def ñii naan opposition milliardaire mais lii les je je le disais je l'ai toujours revendiqué mooy que bu fekkee ne ñii am na lu ñu toppee rek nañ ko teg sur la table donc ñu jaarale ko fi ñu ko war a jaarale mhm. donc bu fekkee ne aussi ñooñu euh, euh, c'est des Sénégalais comme toi et moi. Mhm. su fekkee ne defuñu defuñu dara ñu bàyyi leen bu ñu bëggee tukki ñu tukki parce que ñun ñi tey jii on a rien géré bu ñu bëggee voyager dañuy voyager bu mi dañuy dañuy ñëwaat ci réew ñoom ils ont Mais ce n'est pas, pas, pas, pas, tous les gens qui ont géré qui ont commis des fautes. Mm -hmm. Ce n'est pas, simplement, tu participé euh, à une, gestion antérieure, que, euh, on doit écrire sur ton front que tu es coupable de quelque chose. Euh, je pense que le procureur est sur la bonne voie. Il a, il a, il a envoyé des soins transmis aux sections de recherche, brigades gendarmerie, police, notamment la police de l'air et des frontières. Maintenant, euh, bu bu ñu defee seen enquête ba jox ko euh, procu delloo ko procureur procureur saisir juge d'instruction boobaa la juge d'instruction pourra prendre des mesures conservatoires dire que diw mi ak diw mi ak diw mi ak tel ou euh, telle autre personne ils doivent pas quitter territoire national on doit même confisquer leur passeport yaakaar naa ne loolu pour euh, kii juge d'instruction rek moo ko man mais tant que loolu amul euh, il faut qu'on qu'on euh, respecte les principes qu'on respecte tout ce qui est euh, contradictoire dans les procédures ba nga xam ne ëllëg ak si biir li ñu daloon ci kiiwu Karim Wade bi du ñu dalaat ba ñu naan xam lan comité je sais quoi des nations unies bon bu ñuy condamné parce que Sénégal dafa entravé la liberté de circulation de Oumar Sarr wala telle autre personne de Karim Wade wala wala yooyu donc l'histoire sert à éclairer l'avenir ELCR aussi avec le président donc nañu nañu moytu yenn yenn erreurs yi quoi. Mm-hmm. Moustapha erreur la euh, selon.